beneen bakkan bu ci faatooti lim ba mi ngi yegg léegi ci juróom benni doomi aadama yu faatu fii ci Sénégal ndax coronavirus bi ki mujjee faatu démb la faatu di benn waay bu tolloon ci juróom ñaar fukki at euh, ak ñeent ma ñu doon faje ca centre d'hospitalisation euh, ca centre de traitement épidémie bu diwaanu Louga léegi bilan baak fa mu toll ñoo ngi wax ñeenti téeméeri doomi aadama ak euh, fukk ak ñaar yooyu am nañu coronavirus ci réew mi ca ñooñi ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yi wér nañu juróom benni doomi aadama faatu nañu ci am na kenn ku ñu évacué yi ñi ngi toll ci euh, téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett yoo xamante ne ji ñi ngi leen di fàcc wutali diwaanu tuuba benn seen nas ndaw soo xamante ne ji daal ñaar fukki tam teg na waaye la ca teg bariwul moom la ñu fekk mu daal di faatu nee nañu dafa pàndar boppam yëf ma nga xewee ca quartier Xayra Euh, ñi nga xamante ne ji euh, ñooy euh, maanaam ñoom lañu ñu taataane ci ñoom yi xibaar ñu naan leen ci tubaab yi suuf su nee nañu moom xale bu jigéen boobe baayam kilifa la ci yoonu bay Bayfal foofe ci diwaanu Mbàkke tuba Tuuba sapeur pompier yi nag bañ leen ko yëgalee ca la ñu dem daa di jël néew bu ne gu jigéen googe yóbbu ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ba ca diwaanu Tuuba askan wa yeewoo ci gureel ma nga kon ca diwaanu Malicounda dañu doon manifester démb doon ñaxtoo ko xultu lañ doon xultu mooy nee nañu dafa am seen benn doom boo xamante ne ji gendarmerie ba ñaning moo ko faat loole lañ doon ñaawlu ñaawlu nañu ko nag euh, ñu teewlu kàddu yi ki nga xamante ne ji moo di Ousmane euh, kàddu yi Abdoulaye Sow di wéy juru euh, kookee faatu te ñu ne gendarme yee ko faat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 sandarma yi la ñu tuumal la ñoo faat xale bi ñu laaj waa sandarma ñu ne ñun ñoo leen ko yëgal waaye daañu ci xeltu xam ba xam ndax loolee ñuy wax ana lan la demee dëgg-dëgg di wa ci diggante Sénégal ak Gànnaar mu di frontière u Sénégal Mauritanie dem bi bali fetal tàkk na fa ah, ci guddi gi la bërki bi sax la kay eh, xibaar yi nga xam ne jote nañ ko daal nee nañu takk der yu ah, jëme ko ci ñi nga xamante ne ji dañu leen ñu toog seen kër ñu bañ na a duñu toog ne dañuy wuti marchandise ak lu ñu dunde ñooñe lañu doon xëbal ak tiital ngir bëgg buñ déggee bali fitali kon mën a dellu gannaaw euh, Serigne Fall mu Mouhamed Ndiaye ci tënkoom xabaar yi Histogéo. L'histoire et la géographie racontées dans RFM Matin. Et là, Julio Goudien nous rejoint. Bonjour. Bonjour, Babacar. Niar Italie, ici à Dakar, a enregistré son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire. L'histoire et la géographie de Niaritalie. Oui, Babacar, euh, est un quartier situé au centre de la capitale, dans la commune de Biscuiterie. Euh, c'est dans l'arrondissement de Grand Dakar. Il faut souligner que ce quartier est à mi-cheval entre les communes de Biscuiterie et de Grand Dakar. Alors, pour le nom euh, Niaritalie ou usine euh, Niaritalie, c'est parce qu'à l'époque, c'était l'un des rares quartiers de Dakar disposé d'une route goudronnée à deux voies, située se trouvait à proximité d'une usine, la biscuiterie de Médina, euh, ce qui a donc donné le nom Niari en opposition à Ben Tally, usine Ben Tally, qui lui a une seule euh, voie et qui se trouve à proximité de Niari Tally. Notons que Niari Tally est un populaire quartier avec 40 à 50 000 habitants. Il compte euh, ce quartier rues au total et parmi ces rues, nous pouvons citer Baye Mbarick, Ndiobentaï, Kognou Walo encore Kognou Djouma. Usine euh, Niari a trois écoles élémentaires un poste de santé, un marché, le marché Ngelaw 2. Ajouté à cela l'hôtel de ville de la commune de Biscuiterie euh, qui se trouve euh, dans le quartier Niaritali. Alors, euh, usine Niaritali a des symboles comme les allées Cherna, Cher Sidati Aydara ou encore sa grande mosquée. Il faut souligner aussi que Niaritali abrite la maison familiale de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, et d'ailleurs un de ses neveux, Djibril Wade, l'actuel maire de la commune de Biscuiterie. équipe de football ASC Niary Tally un club qui évolue en Ligue 1 sénégalaise pour euh, terminer retenons que parmi les personnalités euh, qui font ou qui ont fait la notoriété de Niary Tally il y a l'ancien lutteur Boy Bambara l'ancien gardien de l'équipe nationale de football du Sénégal Amady Thiam Feu mais aussi l'ancien attaquant de la Jeanne de Dakar euh, dans les années 70 Alioune dit Cheval Fou et puis il y a aussi le chef religieux euh, Abdourahmane Fall Tilala Chérif Abdourahmane Fall Euh, Tilala qui est décédé le mois dernier à la suite d'un accident de la circulation entre matin. 6h10 RFM matin la météo la température euh, fraîcheur matinale qui va laisser la place de la chaleur pendant la journée ainsi à, à on ira jusqu'à 25 euh, quand même, 25 euh, pour Louga aujourd'hui. Euh, la ville ne va pas connaître une grosse chaleur euh, ce, ce mercredi. À à Richard Toll euh, vingt cinq également Podor euh, vingt six euh, Matam trente de Maxi Kédougou trente trois Ziguinchor vingt six sediou vingt huit Kolda 31 Tambacounda 34 Kaffrine 30 Kaolack 30 vingt 27 Fatick 27 euh, euh, Mbour 24 euh, degrés de maxi Thiès 23 et Dakar 21 je ne suis pas sûr d'avoir de suite sur d'autres plateformes ces Oui, euh, à Thiès, euh, ce sera de maxi. On reprend tout. 35 degrés de maxi pour euh, Thiès, Mbour 35 Fatick 38, Kaolack ça ira jusqu'à 43 degrés, Kaffrine 43, Diourbel 42, Louga 35 degrés de maxi, Saint-Louis 29, Richard

Oui, euh, bonjour, Babacar Fall. Vous nous parlez bien sûr de coronavirus, mais euh, surtout côté sécurité, les opérations des services de la police euh, de Thiès, euh, plusieurs interpellations, des, des dizaines, pour non-respect des mesures euh, décidées par euh, les autorités, notamment le, le port de masque obligatoire à certains endroits. Oui, effectivement, en application des nouvelles directives euh, tournant autour euh, du port du masque, euh, des opérations concomitantes ont été menées par les différents services de la police de Thiès. On peut citer la police centrale de Thiès, la police Nguent, police des parcelles assainies et du premier arrondissement. Ces opérations qui ont permis d'interpeller des centaines de personnes et plusieurs véhicules de transport. Et Babacar, pour vous dire que l'autorité policière ici à Thiès est ferme dans sa décision de faire appliquer euh, ces nouvelles mesures. Cheikh Anta Diop, en direct de Thiès, vous nous écoutez sur FM. Il est 6h13 minutes. Bonjour, euh, cher Sido Silla. Bonjour, Babacar. La chronique éducation, formation, c'est tous les mercredis sur RFM Matin. Le dispositif Apprendre à la maison est venu rappeler les immenses efforts qui doivent être euh, faits par les autorités éducatives pour assurer euh, l'égal accès des élèves au savoir. Pour assurer la continuité pédagogique depuis la fermeture des établissements pour cause de coronavirus, les autorités éducatives ont mis en place un dispositif dénommé Apprendre à la maison. Concrètement, la plateforme numérique offre l'opportunité aux élèves, ceux qui sont notamment en classe d'examen, d'accéder à des cours et exercices. Vantant sa dernière trouvaille, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a eu ces mots. Il est inadmissible dans ce 21e siècle que les parents, les enfants ou les enseignants croient que l'enseignement et l'éducation ne peuvent se faire qu'entre quatre murs. C'est fini ça. On aura l'école traditionnelle, mais on aura également l'enseignement à distance pour les élèves qui veulent être formés. Cela dit, beaucoup d'apprenants ne peuvent malheureusement pas bénéficier des nombreuses opportunités que le dispositif Apprendre à la maison offre, soit parce qu'ils n'ont pas Internet, soit parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur et ou d'électricité. En réalité, le dispositif Apprendre à la maison est venu nous rappeler assurer l'égal accès des élèves au savoir. C'est la condition sine qua non pour avoir un système éducatif performant. Il est d'ailleurs nécessaire de rappeler que les performances d'un système éducatif s'apprécient au double point de vue quantitatif et qualitatif. Le Sénégal a bien évidemment fait des efforts pour avoir un système éducatif performant au point de vue quantitatif grâce à l'accroissement du taux brut de scolarisation et à la durée du trajet mais c'est la dimension qualitative, c'est-à-dire les acquisitions que les apprenants tirent de leur fréquentation de l'école qui fait cruellement défaut. 60 ans après l'indépendance du Sénégal, plusieurs élèves étudient encore dans des abris provisoires. L'électricité est un luxe pour bon nombre d'entre eux, ne parlons même pas de l'accès à Internet. Ces difficultés les excluent de l'enseignement à distance et réduisent objectivement leurs chances de réussite en des efforts démentiels des enseignants. Nul besoin d'être un spécialiste de l'éducation pour comprendre que les résultats catastrophiques enregistrés lors des examens en fin d'année s'expliquent en partie par le fait que bon nombre d'apprenants ne baignent pas dans un environnement propice aux études. Les autorités éducatives de notre pays doivent savoir que les systèmes éducatifs qui sont cités en exemple dans les classements internationaux ont, outre la démocratisation de l'accès à l'éducation, mis en place politique éducative audacieuse de démocratisation de la Celle-ci a permis de réduire l'écart entre les performances des élèves les plus forts et celles des plus faibles. Ces systèmes éducatifs performants ont aussi réduit l'impact des conditions socio-économiques sur leurs résultats scolaires. Pour inscrire le Sénégal dans cette dynamique, l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants nous semble être une condition nécessaire. Cher merci pour euh, la chronique éducation formation. Bientôt 6h17 RFM matin, le micro-trottoir du jour et ce débat qui ressurgit encore à nouveau dans la lutte contre la propagation du coronavirus au, Sénégal avec la multiplication des cas communautaires. Débat sur faut-il passer à un, un dépistage massif. micro réalisé à Pikine par Abdoulaye Diop. Je suis d'accord, mais en un point, que ça ne se généralise pas du haut, mais que ce soit des tests massifs ciblés. Par exemple, moi j'habite dans un quartier, dans une commune comme Yembel. Il y a deux communes, il y a Yembel Nord et Yembel Sud. Actuellement, à Yembel Sud, il y a beaucoup de cas aussi. on prend tous les ans, on fait des prélèvements sur on, va voir. C'est une très bonne chose, le test massif, parce que ça permet de détecter en un personnes infectées. Ça ne sera pas une chose facile car ça demande des moyens colossaux d'équipements et de personnes, mais c'est une réalité sur laquelle le gouvernement devrait réfléchir. Avec le test massif, avec le covid car le nombre de tests est important, surtout avec le développement des cas communautaires. L'État du Sénégal devra sortir les gros moyens pour qu'on fasse au minimum 500, voire 700 à 800 tests Et le, le tube du jour, euh, avant, sachez que ça c'est une euh, plutôt une mauvaise nouvelle pour les amateurs de, de musique. Yusunor a décidé d'arrêter euh, son show euh, en soirée sur la chaîne TFM, euh, l'émission appelée Fille Taille. Le dernier numéro, ce sera ce, ce soir. les artistes euh, sénégalais, notamment les chanteurs, euh, n'ont pas manqué d'inspiration en cette période euh, d'état d'urgence, euh, de couvre-feu nocturne. Et Youssou Ndour, l'initiative, c'était pour